seen tur ak seen sant baax di nuyu Soxna Anta di nuyu Ablaye fay mii di nuy monsieur le maire Madiang waa di am kontaan bu baax nag si ni ngeen ñu ni ngeen kontaan nañ si baax a baax xam naa damay bàyyi rek après monsieur le maire bi. na ngeen def ngeen ne si jàmm alhamdulilah ah, abi ça va ah, Anta comme ni ma la ko waxee woon keroog rek Oumar Ndiaye sama xarit la. Ah, dafa dugg si politique Abdou Karim moo ko woolu monsieur le maire pour mu jàppale ko te moom ba ma seet si ak léegi li ma wax yëpp gis naa ko bu ma woon ay caaxaan duma ko fi indi bi ma gis si moom ak sàmm kàddoom bi ma gis si moom moo tax ma sañ ko indi si yéen parce que yéen defe naa yàgg nañ ma ak yéen mosu leen xam si man ay caaxaan la fayda la ngeen xam si man moom it fulla ak fayda boobu nag laa gis si moom moo tax ma ànd ak moom bëgg nag man ni may jàppale jàppale leen loolu parce que gis naa seen dëggu ak seen am fulla ak bëgg ku leen jàppale te xam naa ne ku leen jàppale ngeen réussir ma bëgg nag yéen it ngeen jàppale ko parce que moom bu la nee lii la loolu la ba ma nee dina ma dina ma yóbbu mairie ba yóbbu na ma présenté na ma ñam ma war a présenté kon donc bu loolu it bu leen ko waxee gëm naa dina ko def lépp lu mu si mën loo xam ne compétence am la dina ko def te yàlla tax kon donc yéen it euh, da ngeen koy jàppale si lim bëgg bu bu kenn du perte daal waa Diamaguène 2 maa ngi leen di nuyu nekk sa tur ak sa sant di leen sant bu baax di leen gërëm si euh, nii ngeen ñu teeroo te xam na ñu ñoo am tuuti retard am fu nu jaaroon doon fa def lu mel nii moo tax ñu am retard ba ñu bari ñibbi waaye ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax di rafetlu it seen euh, teewaay ak seen ànd di euh, am mbégte nag pour xamante ak yéen nga xam naa ne groupement bi ma gis moom macha allah mel na ne ñu am jom lan ñu takk lan ñu bëggantal seen biir lan loolu dafa am solo ndax euh, nu ngeen ñu teeroo ku ko gis rek xam ne wax dëgg yàlla ñu am Pastef ngeen kon lu ngeen di yóotu yal na ko yàlla jàppandal eh, ñu àndoon nag ak Omar Ndiaye ak ñoom bàcc ñu ñëw seet si leen yéen jéggi à péage waxtaan ak yéen si li ngeen xam ne moom lañ jub si muy élection yi nga xam ne mooy élection député yi eh, bëgg naa sax bu luy weesoo incha allah ñu gën a dëgëral suñu suñu suñu suñu groupement bi ba ngeen gën a xamante ak monsieur le maire ba lépp lo xamni mi ngi génn rek inshallah ngeen man sey jot seen walla ndax yeyo ngeen ko élection yi nak dañ see jubtu muy élection député élection yi nak élection gox sa gox la te ku ne xamni Abdou Karim Sall monsieur le maire limu mu jotagum def ci commune bi machallah ndax liggéey bi it dako koo wul fi nak dako koo doore mbaaw jëm ni lolo tax sax mu xawa am touti retard sax looluy nuru sax waye du retard ndax boo xoolee la mu def mbaaw defu ko waaye dafa ni foofu lay tàmbalee ñaari at yi nga xam ne moom la des incha allah fii la jëm si te tàmbali na ko ndax mi ngi fiy tabax poste de santé beneen côté bi ma ngi ko fay tabax muy kàmb kon ak éclairage mi ngi siy yëngu santé bi wax dëgg yàlla social mi ngi si def kem talaay kàttanam kon mi ngi liggéey bu baax a baax ah élection yi nag mu nekk élection yoo xam ne élection gox la maanaam euh, commune bu nekk balaa gën a mën a développer dafay am.

ah ñiy laaj nag bari na lu mat quarante liste ñu ngi fi waaye menn Abdou Karim daal lan xam ne bu ko yàlla doolee jàppale ba mu dugg ensemble moom moo fay sunu député moom seul ñeneen ñi si des na xëy na bu ñu fa duggee feneen la ñuy représenté moo tax ñu leen di ñaan ñëpp ñu ànd jàppale ko te xam ne jàppale Abdou Karim Sall mooy jàppale sunu bopp ku ne xam ne lim fi defagum bariwul waaye gis nga jéego yi nga xam ne moom la fi commencé def macha allah mi ngi ciy bay waaram bu baax a baax a baax a baax kon ba mu dugg ensemble li nga xam ne moom la manqué fii nga xam ne mooy sunu commune bi incha allah dana ko mottali ndax jigéen ñi foo dem ñu ne ñun amuñu marché ñii ne école yi manqué na ñii di wax euh, canalisation te loolu lépp du compétence am balaa ko man dafa dem ensemble man ko faa jooy ñu man ñoo jox suñu wàll def naa monsieur le maire noonu la du dëgg kon nag ñuy ñaan la 17 ñun ñëpp ñu ànd woote jàppale Abdou Karim mu dugg ensemble man ñoo jooyal ndax keneen ku nu wooteel ku ne bu fekkee ne Pikine la nekk wala feneen fu du Pikine bu boobaa bu nekkee député foofu lay servir loolu aussi tamit nit ñi ku nekk sa gox ngay jàppale loolu nag ñu bari xamuñu ko moo tax ma koy leerale nii bokkul élection présidentielle kon nag yëf yaa ngi noonu euh, ma jox kàddu monsieur le maire Omar Ndiaye waaw wala mu jox leen kàddu gi yéen ngeen sànni seen xalaat ndax moom moo ubbi waaw incha allah bu ko defee kayit yaa ngi nii spécimen yaa ngi nii bu ko defee nii la carte bi di mel amoon jaay waaw nii lay mel xëy na boo demee ba si mbañ gàtt bu rëy nii waaye nii lay mel mooy borom mbax na bu taaru boobu macha allah waaw borom koppari muy Abdou Karim Sall le maire de Mbao wax dëgg nekk ku am engagement. ñu leen di nuyu di leen ziar di nuyu Lay Fay di nuyu Omar mi ak monsieur le maire waaw di kontaan si yéen nag dëgg yàlla vraiment li nga wax moom la ñuy dëggal. na ku nekk sa gox nga war a jàppale incha allah rabbi ñu jur nañ taxaw pour jàppale Abdou Karim Sall voteel ko moo am ay député ci bàkki Seydina Mouhamed yàlla baax na incha allah rabbi waaw ñun tamit nañ ko jàppale moom mi mu jàppale ñu dëgg yàlla ñun tuur lañu def fi mbootaay te bu ñu sañoon am ku ñu jàppale ndax fi nekk ni amuñu kenn ku ñu jàppale dañuy tuur ni natt après ku ne dem bu ñu sañoon tamit am ku ñu jàppale ñuy mën a def ay liggéey di liggéey suñu biir di mën a financé am ay financement yooyu noonu daal incha allah mais jàppale bi moom incha di dinañ ko jàppale dinañ ko fotel foteel. asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen ziar di nuyu Laye fay di nuyu sama papa jooju Omar di nuyu monsieur le maire maa leen di nuyu di leen ziar bu wér di wax ne kontaan nañ ci seen teewaay ndax ñun tey jii ay jigéen dong lañ jàppuñu ci dara sunu 2000 2000 yi ñuy natt di ko dajale di teggil kenn muy dem loolu lañ am. dañ lan la ñuy def dañuy ñëw wax ak ñun bu ñu waxee ak ñun dig ñu dem mais suñu carte ñun ñoo ko moom ku ñu jàppale ñu jàppale la ku ñu jàppale wul duñ la jàppale jaayu ñu nag suñu carte mais ñun ñoo ko moom xam nga mënoon nañ koo jaay tey ngeen ñëw ñu jaay leen ko ñeneen ñëw ñu jaay leen ko ñeneen ñu jaay leen lan ngeen ci xam dara mais ñun dañu jàppee dem ba tey bawuñu Abdou Karim Sall mii si ñu ko fal maire ñun ci lañ bokk saa ñu jógaan dañuy jóg billaahi kon tey ji bu demee bay laaj député encore dañu si ànd ak moom ba mu neex ba biir palais ñu nag moom incha allah assemblée Bye.